Rewmi 24 TV. dal ak euh, jàmm ci xibaar jeudi 18 euh, avril 2024 a ko gis noonu tey jii mu doon loo xamante ne mooy génnam gu njëkk moom mi nga xamante ne rek moom mooy président wu Sénégal son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ginnaaw ni ki noonu bañ ko fale ak léegi bu mel ne ginnaaw ba mu génnee rek jubali foofe ca réew euh, jubali foofe ca dëkk bu sell ba di Touba ak Tiwaawan mu mel ne bu dee ak génnam tey ji ci Sénégal nag mu mel kon tey ji daal dinay quitté Dakar ngir rek daal di jëm foofe ca nga xamante ne moom la ñuy wax euh, république islamique de Mauritanie foofee la euh, jubali moom moom njiitum réew mi nga xamante ne rek moom mooy président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ni ki tey ji ci euh, dis huit euh, avril deux mille vingt-quatre mi ngi ko mu doon génnam gu njëkk ginnaaw rek bañ ko tabee ci boppu réew mi mu mel bii mooy bu njëkk muy génn daal di nag jubali foofee nga xamante ne rek moom moom moo tax